من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أكرم الخلق صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وخديمه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokki jullit yi fi teew mbokki taalibe yi ñoo ngi leen di nuyu nuyoob jullit ak moroomam di leen wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu nuyoo bi ñu ngi ciy jiital njabootuk sayxul xaddiim radiyallahu taala anhu gi teew ci mbooloo mi di suñuy kilifa di ci toftal sëriñ Mouhamadou Guèye mi nga xam ne moo jiite tey njabootug Cheikh Adama Guèye gépp ak mbooleem lim jaboote ak mbooleem njabootug Cheikh ma Babou Guèye ak awlaadu suyoox yi fi toog yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh di jéggalu kàddu yi nga xam ne bëgg nañ koo yëkkati ci kanam suñuy kilifa sabab bi rek mooy murit dafa amul lu dul ndigal bu ndigal xasee jib am murit moom sañut lu dul jëfe ko ñu jotoon ndigalul ndegam dañoo daje woo ay nit di fàttaliku kenn ci gaayi yàlla yi kenn ci liggéeykati sëriñ Touba yi mu tasanteeg jëmm jooju ñuy fàttaliku mbir moo gis dafa am dafa am sabab am as la mu jógee sëriñ Bassirou Gueye askanoo ci sëñ Adama Gueye kon mbooloo mi fi teewul mépp jëmmi seex Adama moo leen yëkkati ñu joroon ndigal ci sëriñ Moustapha mu ne ñu fàttali taalibe yi lan moo yëkkati woon sëriñ bi ak lan la woote woon. ak bi sëñ boroom dogalee ci coobaree boppam seex aadama am tawféexi keroog bi sëriñ tuubaa jotee ndigalam ci boroomam mu am tawféexi di jëmm ja nga xam ne moo jëfe na Seydina Abu Bakrin Saddiq jëfe woon keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxee ne yàllaa ma yónni sëriñ Touba. bi nga xamee ne jamono lëndëm na te suñ borom baaxoo jullit ñi saa su jamono demee ba lëndëm bañ fàtte yàlla ba nit ñi réer fàttali yàlla yónni woon yonent bi ci ñoom mu indi ku ñuy wax mu jaddit mu yeesal li nga xam ne moom la yenent bi andi woon fàttali nit ñi bi ci sëriñ Touba jotee ndigal ba gaaral ko mag ñi ca Mbàkke Kajoor suñ boroom dafa dogal sëñ Adama Gueye moo ko njëkk a nangu lan la sëriñ bi gaaral ak lan la sëriñ aadama Gueye nangu loolu lañ yittee xamle tuuti ndax ñun ñi ko fekkewut ñu xam ne sëriñ tuubaa ñëwutoon ci àdduna ngir ngir nit ñi topp ko rek mu leen di jariñoo ñëwut woon tamit ngir ñu topp ko rek ci bakkan yàlla daf koo jox ndigal mu woon nit ñi yar leen teg leen ci yoonu lislaam tërbiye leen bi suñ borom dogalee loolu Cheikh Adama jébbulu ànd ak Serigne Touba Serigne di ko digal la yonente bi daan digal saxaaba yi Cheikh Adama nag waxtaan ci moom yomb na ndax waxtaan ci moom mooy waxtaana lislaam ndax sëriñ tubaa ak mag ñi sëriñ tubaa jëmm la woon joo xam ne suñ borom daf koo indi mu war a gindi nit ñi te suñ borom baaxoog bépp jaamam boo xam ne daf laa indi ci àdduna nga war a gindi nit ñi mu toftal la ay jàmbaar yoo xam ne ñu dëgër ngëm la ñuy doon ñoo xam ne seen ngëm seen tawhid du bokk ak tawhidul xaam bi nga xam ne moom la nit ñëpp am tawhidul xaas lay doon nga xam ne seen ngëm dina dëgër ci yàlla dëgër goo xam ne képp ku bëgg a taxaw ci seen kanam wan leen li am na lenn lu dul yàlla seen tawhid àgg na ci day mel ne nga jàkkaarlook nit naa ko fukk gën a bari ñett ni kooku di am ngëm ne ñett gën a bari fukk nga xam ne boo jëloon géej gi soppi ko urus jël suuf si soppi ko xaalis ne leen fukk ñett a gën a bari fukk du tax mukk ñu mën a gëm ne ñett a gën a bari fukk ndax taw tawxiit boobu lañuy am suñ borom boole kook mag ñu mel noonu Cheikh Adama gi amoon taw tawfeexu bokk ci ñooñu bi mu jébalee boppam Serigne Touba ñu war a jànge ñetti mbir ci moom yoo xam ne ci luñ xam bi Seex Aadama jébbaloo keroog la sos ci yoonu murit muy ak taalube ak àddiya ak liggéeyal sëriñ Touba ndax Seex Aadama bi mu jébbalee Serigne Touba boppam ba daara ji tas donga yi tasaaroo nga xam ne ab sëriñ booba toolub àllarba lay am ak àllarba yi dong yi indi loolu amatul ndax sëriñ bi mu waxee loolu ñenn ñi dem nañ ñenn ñi jébbalu toog Cheikh Adama Gueye jamono yooyu dañ koo sarax am mbaam sëf nga xam ne mooy jëmm ji nga xam ne moo njëkk a jël yitteem xam ne daa war a liggéeyal sëriñ Touba bi loolu amee mbaamam moomu la yor di wër àllub kajoor bi di wër réew mi di kaajeey di majjaal booba mbooleem ku fa nekk ci kër ga Cheikh Ibrahima Sarr Njaañ mooy sa jëwrin bu yee ba ñëw sippi sëf bi nit ñi nga xam ne ñoo jot a doon murid di ko dund ak sëriñ bi ndegam daara amatul mu dellu kaaje yi waat ci loolu la Cheikh Adama nekk ak sëriñ bi nekk ci ak sëriñ bi ba ni nga xamee ne yoonu murid am na doole. léegi nag waxtaan wi dafa am bëgg am ci mbir muñ ko tënk ndax olof dane tunge ni du teew ñuy nataal ndax sëriñ Tuubaa ci jëmmi boppam moom moo wax sëñ Adama Gueye nan la war a mel moom ak ñi nga xam ne ñoo ko war a donnu ëllëg naka lañ war a mel ak ginnaawam ñi nga xam ne ñooy njabootam ak bépp murit bu bëgg a roy ci moom naka nga war a mel loolu sëñ Adama Gueye dafa laaj sëriñ bi moom nan la war a def sëriñ Touba ci wasiye bi ñu tàmbale ginnaaw ba mu ne bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa ummatihi xiyaaril anim fa haasihi alwasiyatu al awsa bi alayhi sarmaran akbar ridwanullahi taala baaxil xadim muriidu aadama Gueye awalu man amana bihi wa taabi'ahu min al muridina ala jammi a ridwanihi loolu suñ tubaa bindal boppam mu wax ne kii toog sama kanam tey di ma laaj bi coobaree suñ boroom ji ñëwee ba nit ñi fax yittewoo ngërëmul seen boroom ñëw ci man mooy jëmm ji nga xam ne mooy njëkk ne aslamtu si nga xam ne ngërëmul suñ borom liñ doon sàkku ci sëñ Tuubaa mu ne mooy Seex Aadama mooy ki njëkk a ñëw sàkku si kon moom la njëkk may léegi sëriñ Tuubaa ngir wax leen ne maanaam jayut jëyuwut mag ñi toppuñ ko woon di ko jay ngir juddu bu rafet bu am jëyutoon mag ñi tamit ngir bëgg a jariñoo seen alal ak seen doole dafa woote yàlla mag ñi wuy ko ngir jëmmi yàlla kon war-waram ak ñoom mooy wax leen lu leen di yóbbu ca yàlla tax mu yitte woo ne xam nan li man xat aw jaba suu ala la anil lazina karihu dalaala sëñ bi dafa wax njëlbeenu bayit yi ne maa ngi sant sama boroom te jamono yi sëriñ bi wax lii booba doomi soxna yi liñ yittewoo mooy ku mokkal alxuraan di laabaan jàng ay boole ba man ko boo mënul alxuraan duñ la may soxna boo demee ci dëkk waa dëkk bépp génn ngay waxe boole di laabaan booba loolu rek moo doonoon yittey doomi soxna yi buur yi ceddo yi nekk fii jàpp nit ñi lool rek moo amoon ci réew mi santuk sëriñ Touba gii nga xam ne daa jëm ci jëmm ju yittewoo boroomam booba rek doo ko xew wala boog sëriñ Touba dañu koy doo ko fàttali tax sëriñ Touba ne sant naa sama boroom ci jëmm joo xam ne xalaat na yow mal xalaat bis ba nga xam ne yow ma laa yanfahu maalun wala banuuna ila man ata allahu bi xalbin salim xelam dem ci bis boobu mu xam ne war naa yittewoo jëmm joo xam ne dana raxas ayi bi bakkanam dox digganteem ak nëx-nëxi àdduna yéegal ko ci boromam ba tax mu indi ab laaj sëriñ Tuubaa ne sant naa yàlla ci aji laaj jooju ndax kii di laaj kat kuy moytu ak réer la ci li muy jëfee ci digganteem ak boroomam sëñ Tuubaa ni mu fokk bi mu jógee ci bayit woowu mu daal di julli ci moom daal ne mu salliyan ala rasuli ahmada wa alihi wa sahbihi sawil huda mu ne maa ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne mooy ahmad ak ñoñaam ak i ak képp koo xam ne ku jub la tàmbali nag daal ne ko haza wa yaa aadamu yaa muriidu in kunta nuuru rabbina turiidu mu ne ko yow aadama yow mi nga xam ne yaay sàkku xam bu fekkente ne bëgg nga leerug sa borom leerug sa borom nag mooy diine ak ngëm yàlla ak tawhid mooy islaam mooy imaan muy tawhid ak islaam muy fiq ak isaan muy tasawuf lamp bu leer boobu di niital jullit bi ba mu xam fu muy teg tànkam nooru boobu la suñ borom la sëriñ Tuubaa jubli ci nooru bi daanaka boo bëggee loolu fa dum na sax dàq te bu ci jóge mukk xalaa ibaadati rahmaani wala takun min xaafidi lismaari bul mel ne ceddo yi nga xam ne ak jàngikati alxuraan yi nga xam ne ak doomi soxna yi nga xam ne laabaan ak jàngi boole ak not nit ñi jël seen alal ak di jaamu jigéen ñi mooy seen métier boo bëggee leerug sa borom bul bokk ci ñooñu fa dum xalaa xibaadati rahmaani nag jamonoy xam ko dafa jot ndax jamono dafa nëxte lëndëm ba mel ne Serigne Touba am polo woote woon ñu gis xeetu murit goo xam ne buñ dee jàngat doxinu mag ña duñ xam ay murit lañ duñ xam lu ñu doon ndax am murit mooy jullit boo xam ne am na ngëm ci boroomam ngëm gu mat taw itam mat mu xam islaam jàng fekk ba xam ko dal yër xolam xam ne am na lu ko dese mu bëgg lu gën lim nekk kon képp koo xam ne am murit nga ñu ngi sarexa bii nga xam ne la oyof la jëfe woo ko ba mat ba noppi gëm ne da ngay jëfe àqiqa da ngay nax sa bopp ndax mag ñi nga xam ne ñoo topp si woon Sëriñ Tuubaa doonuñu woon ñu nekk ci mbedd mi di wëreelu ba Sëriñ Tuubaa ñëw ne topp leen ma rek ñu topp ko ndax mbooleem ñi nga xam ne ñoo ko njëkk a topp ñoo moom sëriñ bi ci boppam ñoo bokkoon nekk ci kër sëñ Mor Anta Sali nekkuñ fa woon di bay nekkuñ fa woon di gor nekkuñ fa woon di yet dañ faa nekkoon di sàkku xam-xam xam-xamub lan xam-xam boo xam ne mooy tax ñu mën a jaamu seen borom kon ñi nga xam ne ñun ñi nga xam ne ñoo doon mag ñi ak taalibe yi nga xam ne ñoo daanu taalibe ya ak suñ sang sépp li nga xam ne moo war moo ñu tënkuwaat delluwaat ci delluwaayu mag ñii def suñ yitte muy jaamu yàlla roy mag ñi xam ne sëriñ Touba fowul fowul borom kër gi tax ñuy woote fowul fowul ndax moom borom kër gi tax ñuy woote maanaam sëriñ Bassirou Mbacke defaroon na ko ba nga xam ne lépp luy àdduna ak bakkan ak bëgg daraja dañoon na ci moom mandarga bi moom dane fàng ñëpp mën cee teg seen bët ndax bu ñu laa borom kër gii ngeen nekk tey at mu jot daana bay junniy bëri ko kon xam ngeen ne kooku nekkutoon ak bakkan lu mu am sëriñ Touba la ko jox sëriñ Touba mi mu ko doon jox nag dafa am tawféexu dajeeg doomi sëriñ Touba joo xam ne fóot na nii dal ko Serigne Touba ba bëtam tegu ci mu xam ne lu waay jox sëriñ Touba doo ko réccu waaye li mu doon jox sëriñ Touba lépp ak li muy bari bari nag taxutoon mu topp bakkanam kon nañ bàyyi murit bu jóg bu sëb Serigne wootee nga joxe ci ñaari junni wala ñetti junni defe ne jàmm yàlla wàcc na la jaaduwut. mag ñi dañ daan jël liñ am lépp jox ko sëriñ Touba nekk ca tool yaay bay ba wàcc jot ñu wàcc buñ noppee fanaanee naa fii la ba bët set te taxut seen xel daal kon ñun nag duñ mag ña jaamuun yàlla nañ ko war a jaamoo suñu àddiyee tuuti lañ ciy jox sëñ bi li ci des ñu téye ko ba noppi bëgg a topp suñ bakkan di jaam yàlla dañuy nax suñ bopp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh tuwaar kàlla ah, li sa waajur yu bëggoon ci yow day wax dëgg yàlla gay Malick Fatiam joojo Ndiaye am na mu mel nii dafa mel ni dañuy waaj a jëm ci liggéey bi lii ab tàmbali la woon gàttandu waxtaan wi sëriñ Cheikh yàlla na suñu boroom guddal fan wi euh, wéral cër mi gën a leeral xel mi li nga fi wax leer na jariñ li bari na tubaar fakal la mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa ñu ngi jublu nag ci cérémonie bi te ku toll ni Cheikh Ahmadoul Bachir Gueye gane àdduna 1922 génn ko 1983 62 ans la def ci àdduna ak li mu liggéey ni mu toll da ngay defe ni ay juróom-ñett fukki at juróom-ñenn fukki at liggéey na ko fi waaye dafa mel ni sànq dama seeti sama benn xarit Cheikh Ada mu wax ma xista boo xam ni su ma sañoon dinaa ko baaxee ndax ñëpp dégg ko Serigne Bassirou Gueye kenn la woon moom kenn waaye dafa mel ni ay Serigne Bassirou géey yu bari la fi bàyyi muy njaboot gi kenn ku ci ne nag am nga droit tànn sam sëriñ Basiru Gaye ca téesaw la meñ yam ca loolu mooy defar bokk gi ca sol malakis wuy defar kon bala may tàmbali waxtaan wi wala ñuy dugg ci biir dañuy jox sëriñ Sidi Gueye mu nuyoole leen ak kilifa yi fi teew yépp sëriñ Sidi bokki taaliba yi teew nanu jigéen ñi teew nanu sëriñ si teew nanu géwél yi teew nanu sëriñ Sidi maa ngi jéggalu bu baax dafa am lu ma xamul woon te wateraay sax bu jubee gaar bi dafay corne sëriñ xam Hamsa moom sëriñ Abdoulahat Mbacké dafa ñëw te muy kilifa ca ku ne xamoon diggante Cheikh Ahmadoul Bachir ak Cheikh Abdoulahat Mbacké dafa ñëw nga fa war a ñëw kon bu ñëwee jaadu na ma présenté ko mbooloo bi pare doog a jox sëriñ Sidi mu présenté kilifa yi fi teew waaw asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ko waxee woon léegi rek ñu tàmbali ci liggéeyub cérémonie officielle bi mu mel ni ñu ko Basiiru Sàmb waxe rek ñu ngi nuyoo tàmbali ci ñu nuyoo am sa Mbàkke moom Sëriñ Abdul Ahad Mbàkke ca di ko dongant ci kàddu yi nga xam ni kenn ci ku xeebu ci taari bi ñu ngi ko yëkkati ci biir jataay bi kon Sëriñ Amsa ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullaahi taala wa barakaatuh te lay wax ahlan wa sahlan dalal ak jàmm dikk nga foo war a dikk mbàkk balla mu mel ni buñ ci jógee sëriñ sa sëriñ Basiru Mbàkke moom sëriñ Moustapha Basir yónnee na fi ndaw ci suba ñëwal na bokk mi itam te mi ci biir jataay bi mbàkk yi sant nañ la bu baax ci taxawaay bu rafet bi nga xam yaa ngi koy taxaw ci at mu nekk sëriñ Seex moom sëñ Muntaxa Basiir waaye juróom di soxna Bari Gueye moom itam teew na fi ñu koy sant di ko gërëm ak délégation bi sëriñ waa kii sëñ Muntaxa Basiir gépp la àndal di wax ni sëriñ Xaarim Diouf moom sëriñ Aliou Diouf moom sëriñ Modou Diouf moom sëriñ Aliou Diouf teew na fi sëriñ Modou Kara moom Serigne Moustapha Basir teew na bi Serigne Abdoul Hakim moom Serigne Sidi moom Serigne Abdoul Hakim teew bi Serigne Modou Roqaya moom Serigne Cheikh Astofal moom Serigne Basirou teew na bi Serigne Abdoulahi Mbacke moom Serigne Dame Atta moom itam ñi ngi rafetlu ab jotaay ab teewaay ci jotaay bi lool ñëw na fi ngir. ak sëriñ waaye ñëw na fi ngir ak bokk sëriñ Basiru Mbàkke ibnu sëriñ Seex moom sëriñ Moussa itam teew na ñu ngi koy sant bu baax ca di ko gërëm sëriñ Xaadim Mbàkke ibnu sëriñ Moustapha moom sëriñ Moussa it fi ñu ngi koy sant di ko gërëm sëriñ Basiru Sëy moom sëriñ Aliou Sëy ñëw na bëggoon naa xaar cérémonie officielle bi waaye yàkkamti ak yitte rek moo tax mu dem waaye amoon na yitte xaar ko lool kon mu mel ni dañuy daal di bëgg euh, dugg ci ñenn ci suñ mbokk yi nga xam ne ñii moom lañ bokk see xaaram di leen wax ni sëriñ Abdou Lahad Mbacke moom sëriñ Moustapha Abdou Lahad na fi waaye nag ñëw na fi ci ndigalu sëriñ Moustapha moom sëriñ Abdou di leen wax ni Serigne Jili Mbàkke moom Serigne Fàllu njuru itam teew na moom itam ci kër gi la ndax mbokk la lépp la ci biir Serigne Xaadim Mbàkke ibnu Serigne Ceerno Muntaxa moom itam teew na ñu ngi koy sant bu baax ci di ko gërëm mënoon na ñëw ci jenn mbokk yi nga xam ne moo leen bokkal Cheikh Adama la nga xam ni bis bi moom ñoo ko ñoo ñu ne ñoom ñoo ko bokk ñu jiital si Serigne Cheikh Fall Gueye ibnu sëriñ magee jama ibnu Cheikh Adama Gueye teewal na fi teewal fi sëriñ Modou Gueye mi xalifa sëriñ Adama Gueye ñu ngi koy sant di ko gërëm te ñaan mu yàgg fi moom sëriñ Modou suñ kanam sëriñ Cheikh Adama Gueye ibnu sëriñ Aliou moom itam la teew na ñu ngi koy ñaanal tey wax ni sëriñ Cheikh ma Gueye ibnu sëriñ Abdou Sama di kilifa kër gi yëpp moom itam suba ba léegi fi sëriñ Cheikh Dieng ibnu sëriñ Abdou Latif teewa na fi sëriñ Nourou Fall ibnu sëriñ Cheikh Fall Baye Góor teewa na fi sëriñ Talla Fall ibnu sëriñ Cheikh Fall Baye Góor teewa na fi sëriñ Soda Guèye ibnu sëriñ Baara Guèye moom sëriñ ma Guèye Ndiaye teewa na fi sëriñ Soda Guèye ibnu sëriñ Cheikh ma Guèye Ndiaxat teewa na fi ak i rakkam sëriñ Basirou ibnu Sëriñ Seex Cokki teewane bi ci ndigal Sëriñ Basiru Fall alxuraan mi suñu waajur Sëriñ Seex Fall ibnu Sëriñ Mbàkke Moodu teew na fi Sëriñ Mbàkke Fall ibnu Sëriñ Seex Fall Baye Góor teew na fi Sëriñ Moustapha Guèye ibnu Sëriñ Soora teew na fi ak i rakkam Sëriñ Ilimaan Guèye baabu teew na fi ibnu sëriñ daam géey ak i rakkam sëriñ Mohamed géey ibnu sëriñ daam naka noonu sëriñ Abdou Hakim géey géey moom daa bokk ci ci màggal gi boobu ba léegi noonu moom sëriñ Moustapha jam wii ni teew na fi ak i rakkam waaye moom itam booba léegi ñu ci màggal yi ak sëriñ Moustapha géey Euh, sëriñ Bassirou Guèye ibnu sëriñ Moustapha soxna Fat Ndiaye teew na bi waaye tam sëriñ Cheikh Ma Guèye ibnu sëriñ Adama Guèye teew na fi ak rakam boobu ba léegi mi ngi ci màggal bi sëriñ Abdoul Aziz ibnu sëriñ Abdoul Khadim itam teew na fi ibnu sëriñ Baara Mbacke teew na fi euh, mbokk yi ñu ngi jéggul képp koo xam ne dañ laa rek euh, képp koo xam dañ laa limu rek maanaam doomu aadama motu rek waaye am na yéene lim la mu mel ni nag am nañu fi teew ñoo xam ni dañ leen fee yónni ku mel ni Serigne Mor Lo représenté ministère Serigne Khadim Diop moom itam mi ngi ñu daal dugg ci daayira yi nga xam ni ñoo aju ci kër gi te dugal ci seenu ñax ñu njëkk ci daayira Touba Forage ak daaira daaru géewul piñ ak daaira Touba daaru mannaan ak daaira Touba saxaw ga ak daaira Dakar ak daaira Touba daaru minam 1 ak daaira Touba bogo ak daaira Touba Tindodi ak daaira Touba Njaareem ak daaira Touba Kaolack ak daaira Touba Italie dugal nañ seeni ñàq ji ci bis bii nga xam ne moom lañu defal sëriñ Bassirou Gueye mu mel ne am na lu ñu xaw a fàtte ci mbokk yi mu mel ni sëriñ Khalil Sarr ak ci rakkam ak ku mel ni sëriñ Mamoun Sarr ak sëriñ sunu baay sëriñ Moustapha Gueye ibnu sëriñ Moussa Jama moom itam boobu ba léegi mi mi ngi fi kon daanaka mënoon a jàll ci liggéey yëpp cérémonie officielle bi Serigne Mamoun Sarr nag ñu ngi koy beral ak cant moo li aju saareen di beral ak cant kenn ci kër gi daanaka jëru woon ndax mooy yéen yéenay moom muy Serigne Soda Gueye moom Serigne Cheikh ma Gueye Jaxat fi la yendu ànd ak délégation mi kenn desut ku lim ñoo fàtte amp Gueye mii ak Serigne Mbacke Fall mii ñu àndal sëriñ eh, Amsatu Mbàkke sëriñ Abdul Ahad ñu ngi lay nuyu bu baax ci turu sëriñ Abdu sëriñ Xaadim Jóob nuyu sëriñ Cheikh Gaynde bu baax ak njabootu sëñ Muntaxa ak yépp nuyu sëriñ Basiiru Mbàkke mi nga xam ne mooy meeru gox bi ñu nekk di suñu mbokk di suñu xarit nuyu kilifa yiñ fi fekk yëpp ci turu sëñ Xaadim Jóob bàyyiwuñ kenn beral nuyoo nag sëriñ Moustapha Guèye mi nga xam ne mooy xalifa sëriñ Bassirou Guèye sëriñ Bassirou Guèye kenn ku ne xam lim liggéeyoon sëriñ Touba. lim liggéeyu la doon sëriñ Basiiru dégg naa léegi ku wax ay atam waaye jëfam ci yoon wi ñépp ñoo ko ràññee woon sëriñ Xaadim nag ne ñu ñëw fii pour ministre de la république waaye dafay ñëw ngir bokk ci kër gi di doom ci kër gi looloo tim bi ñuy ñëw léegi ci yoon wi mu wooñu wax nañ ci lu bari ci digganteem woon ak sëñ Basiru Géy mu ne bi mu nekkee Jurbel di jàng bu koor masaan jot lépp ci wetu sëriñ bi la koy defee jànge ci moom lu bare bare bari kon bu bis bu mel nii amee xat-xatu jamono ji moo tax waaye moom moo amoon yéene ñëw Euh, kàddu yi nag di kàdduy ziar sëriñ Moustapha ak njaboot gi yëpp sëñ Moustapha wax nañ ko léegi wax nañu ko léegi bi ñuy nuyoo moom ni nga xam ne noonu la ànd ak ay rakkam ba boolewaat ñoo ñoom ñu ñëwaat nuyoowaat ak ñoom bu baax kon sëñ Moustapha ñu ngi lay ziyaare ci turu sëñ Xaadim ci bis bi ak njaboot gi yëpp bàyyiwuñ kenn sëñ xaadi matam mu nañu bu ñu ñëwee nañ koo ziyaareel mbokkam yi fi nekk yépp bàyyiwuñ kenn ba bi ñuy ñëw sax am na ñu ma ci ràññee mënuma ñàkk a tudd seen tuur muy sëriñ Modou Kara ndax ñoo ànd ñëw ma koy ziyaare bu baax mu sëñ Moustapha sëriñ Cheikh Abdou bu sëñ Dam Atta di suñu xarit di suñu lépp moom itam ñu koy nuyu di ko ziyaar sëriñ Modou Roqeya Mbàkke bu sëriñ Cheikh Astou moom itam ñu koy nuyu bu baax di ko ziyaar ak sëriñ Abdou Akim Mbàkke bu sëñ Sidi ñooñu nag li tax ma beral leen nuyoo bu ma leen nuyoo nuyu naa ñi fi nekk ñépp jiital ci nuyoo bi nag kilifa jotaay bi mooy sëriñ Amsatu Mbàkke bu sëñ Abdul Ahad ministre Khadim ma wax sax di doom ci kër gi waxoon nañu bu ñu ñëwee buñ ko ziyaaree sëriñ bi euh, yeesalal ko passeefam ak kóllëreem ak diggante kër gi moom ak kër gi nee na ma ngi sàkku ñaan ñu ñaanal ko ci li nga xam ne moom la dugg ca président Macky Sall def ko ministre cam jaar ci kilifaam léppam royukaayam di sëriñ Muntaxa Bachir ñu koy ñaanal mu yàgg fi lool ci ànd ak wér ci wetu magam ju baax ji sëriñ Cheikh Sidi Maxtaar mu déggal ko lool taxawe yoon wi taxawaay bu rafet kooku kon bu ko joxee ndigal mu nekk ci béréb di liggéey pour réew mi bés bu mel nii am mu ñëw ay bokkam rekk nekk fi dana ko feddiliwaat mu ne moom ci noonu rek la fas yéene doxe dox ci ndigal bàyyi tere li mu bëgg a liggéey liggéeyal ko askan wi liggéeyal ko réew mi jàppale président Macky Sall muy sàkku ñépp ñaanal ko ci kon kàddu yi daanaka jërul muy gudd kàddu yi euh, wax yéena ci bis bi bis bu mag bii ñuy defee fii ci Wurkañ di dëkk boo xam ne dëkk bu am histoire dëkku liggéeyukaay la kon bu bis bu mel ni amee yoon la mu ñëw fi euh, mu ne ma ngi sant ñëpp feddi liwaat ko lëreem ak kër gi xam ne ci la bokk ca sëriñ Moustapha jiite ko feddi liwaat ko lëreem ak bokkam yëpp yiñ fi fekk ak yiñ fi fekkut sàkkuwaat ñaan ñu ñaanal ko ba li nga xam ne moom la bëgg a liggéey ci ministère boobu mu yor ak ci réew mi yëpp liggéeyal ko sëriñ Touba liggéeyal ko waa kër sëriñ Basirou liggéeyal ko senegal yëpp mu defe ko ni nga xam ne noonu la ko ay kilifaam bëggee maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp lu ci dëng nag ci man la waaye sëñ xaadim kenn ku ne xam na ni muy waxe ak yarute gi mu àndal ak ab xam-xa àdduna gi euh, bu ñu boole waatee ak sëñ làmp mi nga xam ne ci kër gi la bokk di ci rakk di lépp ak sëñ Mbàkke Fall mi nga xam ne fu muy yable moom lay yabal may dolli rek di leen gërëm ñoom itam wax dëgg yàlla niñ ma bàyyee kàddu gi maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. billahi min seytaan rajim bismillahi rahmani rahim asalaamaaleykum jullit yi yéen mbokki sëriñ si yéen mbokki taalibe yi di waa kër sëriñ Bachirou Gueye ah, noo ngi jël kàddu gi ci ndigal ak di wax ci sunu bokki dëkkandoo yi nga xam ne ñoom la mbokkal commune bii nga xam ne moom la ñuy wooyee TIP di kër sëñ Moustapha moom Serigne Bachirou ah nu jël kàddu gi nag ci ndigalal sëriñ Bachirou mbakke mi nga xam ne moom la baayam teg loxo bi ci ci euh, commune TIP mu yor ko yorin wu rafet boot itam ñëpp te nangoo sonn ci lépp lépp loo xam ne lii doomu aadama bu nekk ci dëkk bi ci commune bi yaa ngi ca mu nar caa ànd ak yow bu dee mbégtee mu ànd koog yow bu dee safaan bayit mu ànd koog yow kon sëriñ bi noo ngi lay dalal jàmm nun njobootug sëñ Bassirou Gueye di ñenn ci ñoo xam ne ñii ñu ngi ci sa gannaaw nekk ci sa kanam te sa maam nee na woon wurkuñ gii mooy pekkam sa baay mas na may wax ak moom ca tiib mu ne ma yéeney sunum ñakk te am ñàkk day jege la muy ñàkk te gën koo ñagas kon mbàkke noo ngi lay dalal jàmm yaag ñi nga àndal ak ñi nga bokkal communauté bi ci yëpp ñi nga yilif ñëpp sëñ Bachirou Guèye ak njabootam ak i dongaam ñi ngi ci sa gannaaw foo joxoñ ñu jëm fa boo toogee ñu boo leen toog loo ñu toog loo santaane ñu def loo tere ñu baax te doonu seen sax ci lu noonu tere noo ngi gërëm ñëpp nag di ca di ca jiital Darou Salaam Typ di ca teg bustaan goog sëñ Moussa Bachirou di ca teg Nasrullahi goog sëñ Abdou Hakim ak Madina Salaam goog sëñ Isaaxa Tawfeex Xay ga goog sëñ Modou Abdoulahi ak suñ mbokki dëkkandoo yi ci des ñu mel ne Cheikh Touré Mbul Kayel Madina Madina Salaam ak sun mbokki njenne yi ak Mbar ak Jamweleeg Caareen kër sëñ Touba Sarr kër sëñ euh, Mbacke Sarr ñëpp a ngi fi dëgg la sëñ Touba Sarr mën naa dalal waa Caareen yi ñëpp ndax wax dëgg yàlla sëñ Maguette Diama soxna Say Guèye euh, sëñ Mamoun Sarr. kon sëñ Mamoun saar war naa mën a dalal waa Thiaré ñi ci def fii ci tip ci Bourgogne kon sëriñ bi jëf Sarr def nga lu la war ndax da ñibbisi ci sa kër maam kër sa nijaay say sang nekk fi war nañ laa rafatal yaa ngi man jërëjëf kon wax ji daanaka su ma yeboon ne la guddal ah sëriñ Moustapha Guèye say rakk ak say dongo sant nañ la bu baax ndax luñ mënul woon ci seen baay mënuñu ko ci seenub sëriñ yaa tàmbali nga ko di leen ko defal kon fokk ñu sant lañ ngërëm loo xam ne lii xam nañ fu muy tàmbalee waaye nag li nu man te di ko ñaan gannaaw sëñ Basiru làq na sunu làq na ngërëmal sa baay yàlla na nga gudd fan loo tàmbali yàlla na yegg loo tàmbali rek yàlla na yegg képp ku fi nekk te sa baay sopp ko bu gisee sa liggéey rafetlu na ko sant na la gërëm na la daan ko seereel bokk yi fi nekk nag ndax dégg naa waa Mbàkke ñëpp a ngi fi ah sëñ am sama baax mi nga xaal ne sëñ Abdoulaye baayam wallaay géey yooro Mbàkke Balla guddalu fan guddalu fan ndax ah, teral nga sëñ Modou Guèye mi bu baax ndax fu mu ne nga fekk ko fa jërëjëf kon wax ji daanaka jërët a guddal foofu nañ koy yemale wasalaam ci tur googu mag mi ngi ñëw noo ngi lay nuyu ci turu sa mbokk sa xarit sa mbokkum daara sa wayjur Cheikh Souleymane moom Cheikh Mababou Guèye yebal na ma fi maa ngi njabootu seexam baabu gépp buntu këru doomi seexam baabu bu ne joxe na ndigal ka koy wattu mu ànd ak nun ñëw ci sa bis bi bis bi nag du tey démb la te histoire dee su ko suul dee su ko jéem a fàtte fàttelu ndax njëkk a jébbalu Seex gii mënee su koo fàtte mënee su koo fàtte fàttelu teyit Sëriñ Tuubaa ak Seex ak mag ñañ àndaloon bi ñuy sos ak njébbal yombutoon kenn ñemewu ko woon ñu bari it xalaatuñ ko woon tey nag ku mu neex nga bëgg ko mbaa nga di ko def lu mbaa nga di ko def waaye ñu demee ni Cheikh Ibrahima Njaañ Serigne Aliou Diouf Lambaay keroog ba mu naan folli sa ndomb ak tànk moo gën a yomb lii nga wax noo lànk de boobee jébbalu yombut boobee it seex yombut seexal yombut tey nag kum neex def ko waaye sëñ Moustapha Tall bii nga xam ne samaam Cheikh Adama Gueye moo ko taal Cheikh Souleymane nee na ku ci def ak gànj da nga ko waaye ku ci def gilit guy guy saxarit da nga ko tey sëñ Tuubaa rekk a fi ne lu fa yóbbu lu dëgg dana dellusiwaat say loxo kon nag yoon wii nga xamante ne bii yoonu murit la sëriñ tubaa sos ko samaam jëkk ci sëriñ bi nee na mu ngi sàkku ci yow yaag njabootu sëriñ tubaa gépp ngeen ñaan ci yoon wi lépp loo xamante ne bii sax sax la te defarut yàlla na ko sëriñ Tuubaa génnee sëñ lay nee na fii nu toog tey bët xonq na ba tey dugg fi génnaat weex loolu nun ñii de gone fekke nañ ko ci Seex Basiiru Géey loolu it histoire marqué na ko ndax sëñ Bassirou bind na ko ci meneen baaxil xaddim am na kenn ci buur yi koo xamante ni bii ñàkkoon na suuf ak nguuram ñu tegtal ko Cheikh Adama Guèye ba mu ca demee lam ñàkkoon lépp da ca jotaat ku yër meneen baaxil xaddim gis ko te histoire nag bariwut fu marke marqué baatin buñ bind kon nag li fi mag ñi bàyyi woon te Cheikh sëñ ma Guèye ba Basirou Guèye ba ci sëñ Abdou Sabat mii nga xamante ni bii moom nga wuutu yow day Guèye lépp sëriñ bi nee na gis na ni ko sàmme ak ni nga ko taxawoo kon nag nee na la nga xam ne moom la mag ñi defoon digal na mboolem koo xamante ni bii njabootu Cheikh ma baabu nga nafa si yéene ànd ak yow ca loolee loo bëgguñu ñu bëgg ko loo bàyyi ñu ba ko bi may jég nag boole na maa sëriñ soodam sëñ Cheikh ma Guèye ak sëñ Moustapha sëñ Mor ak sama rakk ak Moustapha sama rakk ak mboolem njabootu Seex Baabu nga xamante ne bii kenn ku ci nekk buntu këru Seex Baabu ka la wuutu Seex Baabu jur ka jur nañ ànd ak ñoom ñun ñëpp ñëw fii fi sa gannaaw yeesal li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon fas ci yéene ànd ak yow ba faw ndax kat yow kenn ku ci ne bu toppee ci yow. ëllëg la nga xam ne moom la seqoon ak way juram nga seqoon kook sa way jur loolee dana ko mën a tegaat te loxoy ñooñee kon noo ngi sant yàlla ci yow bu baax a baax di ñaan sëriñ sa yow mi nga xam ne yaay sëriñ tubaa ci jataay bii noo ngi sàkku nga ñaanal nu sunu kilifa yi ak sunu njaboot yi yàlla bàyyi leen fi te yàlla sàmmal leen seeni xel ak seeni xol ba dara du ci nekk lu dul sëriñ Touba ak bëggam ak njabootam. wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.